ñu ngi sant di gërëm waa Africa Feliz ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jàppale ba lii mun a am ñoom Africa Feliz dañu am liggéey bu am solo bu ñu def si seem jàmm gën be tabaxal nañ leen ay salle de classe jàppale nañ leen am na formation ñu def ci xale yi mais formation bi tey dafa jëm ci jàngalekat yi surveillant yi ñu ñaanoon leen ñu yaatal ko ci euh, yeneen euh, collège yi nga xam ne moo nekk Thièsville ñu may ñu benn représentant par collège fii ci Thièsville donc euh, jàngalekat bi nga xamante ne moo war a yar xale yi ñu toll ci li ñuy wax retour aux valeurs baax na ñu fàttali ko teggin Euh, maanaam comportement bi mu war a mun a am ngir mu mun a jàllale wéyale liggéeyam ni mu waree loolu mooy solo ndaje bi tey ñu am mbégte loolu di ko def fii ci teewaawu mbooleem ñi fi ñi nga xam ne convoqué nañ la nga xam ne inspecteur u Thiès ville yi ñoom ñoo koy def euh, def ko ci lu ñuy tuddee benn panel ñu waxtaanee éthique déontologie en milieu scolaire maanaam naka lañ war a mun a ban taxawaay lañ mun a am ci biir école yi jàngalekat bi ngir mun a yar yar bu rafet xale yi ñu dénk. constat bi ndax da ngeen jàpp ne jàngalekat yi woon démb ak yu tey dañoo wute wala lan moo xew. waaw xëj na bon du wax ne dafa wute pour euh, indi benn différence waaye jamono dafay dox euh, jamono day dox su jàngalekat yi wute nañ jàpp ne également ne xale itam. wute na xale yi démb ak xale yi tey donc ba tax na nu ñu ànd ak jamono dox ak ñoom bu comme xale yi wuute nañ bu jàngalekat yi wuute ñun sunu wàllu bopp mooy li ñu am mooy di fàttali ndax pédagogie dañuy wax ne rappel le rappel ci pédagogie di fàttali ci pédagogie la bokk donte xam nañ mais ñuy fàttali dina leen ko fàttali ci forme de séminaire dina leen ko fàttali bu ñu ànd ñoom dem ci école yi di waxtaan ak ñoom. Euh, le plus souvent également ñu wax wala éthique ñenn ñi dañ ne peut-être waruñu ko jàngal nit ki nit ki si niñ ko yaree foo mu bàyyee ko yooyu yëpp da ko war a topp mais surtout boo demee ba war a nag nekk jàngalekat mais souvent yenn saa ñu dégg yenn ñàkk déggoo diggante yenn jàngalekat yi wala njiitu école yi ak waajur yi. Euh, foofu it euh, lan ngeen di xaar ci bu ngeen nekk ci rajo waaw xam nga ay dëkkandoo lañ dëkkandoo bu ñu nekkee du ñàkk léeg-léeg mu am ay ñagas-ñagas mais am na ay jumtuwaay yoo xam ne nekk na fii li ñuy wooyee comité académique du contrôle interne kooku dafay accompagner jëpp loo xam ne jëm na ci wàllu gestion mais am na également des comités académiques de dialogue social ak comité départementaux au niveau des inspections de dialogue social nga xam ne ñoom si li leen tax a jóg mooy di waxtaan di fexe di moytu di yee fitna di moytu di fexe jàmm di am maanaam li ñuy woowee pacification de l' espace scolaire ngir jàmm am ci école yi bu jàmm amee di dinañ mun a jàngale normalement xale yi jëriñoo ko. dañu ne ndaje bi dafa heure bii ñu ko def heure la daal ndaje bi heure jot na. parce que toll nañu foo xamante ne yenn saay euh, diggante élève ak enseignant dafay xajam lool waaw euh, ñu naan nag xale yi ñoo ñoo changé jikko xëj na jamono dafa dox ba xale yi léegi changé nañu jikko waaye xëj nañu xëj na it suñu yeesalaatee rek enseignants yi ci éthique ak déontologie dina tax diggante bi gën a ratax loolu moo taxoon euh, ak financement députation forale bu Biscaya coopéra Euskadi yi tamit jàppale ci Africa Feliz ñun ñu lëkkaloo ak IEF ak euh, sayem jàmb gën mais aussi ak yeneen collège yi nekk Thiès ville pour euh, def ndaje bi nga xamante ne quatre inspecteurs bu soobee yàlla daañu intervenir dina am ay échanges que ñu yaakaar ne dinañu fructueux pour que suñu jénnee ci ndaje bi ku nekk euh, enseignant bu nekk delluwaat fa mu waroon nekk taxaw taxaw taxawaay bi mu war a taxawee euh, jàppale xale yi ndax xale yi année scolaire il passe plus de temps à l'école que ci seen kër yi donc loolu dafa am importance. xale yi depuis daaw commencé nañu ak ñoom ay formation en citoyenneté active euh, monsieur kan forum civil moo koy def et d' ailleurs dans ce sens que bu soobee yàlla dina am benn document boo xamante ne daañu ko partagé ci fan yu néew euh, ci document bi ça prend en charge ODD yëpp ça prend en charge beaucoup de questions euh, pour waxtaan ak xale yi. Euh, yee leen euh, leur faire revenir aux valeurs ndax fi mu toll nii nag dama yaakaar ne euh, li ñu war a xeex bi yëpp liggéey bi yëpp foofu la xale yi nañu dellu siwaat ci suñuy valeur dellu siwaat ci suñuy baax maam su boobaa diggante bi dina ratax njàng mi defe naa ne école sénégalaise euh, du nekk ba bi ñu wax ne dafa renversé wu mais au contraire dina gën a enraciné wu et puis mu njëriñ mu doon njëriñu xale yi waaye ñu ni tamit parents yi mu nekk euh, suñu suñu taw feex c'est Mor su suis inspecteur secrétaire général de l'IEF de Thiès Ville. bon tey bi ab rencontre la bu ñu am ak jàngalekat yi ñu nekk jàmm gën bee mais élargir ko yeneen collège pour waxtaan ak ñoom ci wàllu lu ñuy wax éthique ak déontologie nit ki nu muy war a comporté woo. ci wàllu liggéeyam loolu moo nekkoon ndaje mi def ko benn genre panel panel boobu nag euh, man maa def discours introductif bi bi ma pare sama yeneen nattango yi euh, ku nekk wax ci sa xalaat. lu intéressant la parce que dama jàpp ni pour ñu am des enseignants de qualité il faut ñu am de bonnes formation en tout ici vraiment c'était sur la l'éthique et la déontologie lu am solo la parce que il faut nga am un bon comportement ci fi ngay liggéeyee. am un bon comportement au travail pour que li ngay liggéey mën a am jeexital ci xale yi nga xamante ni moom ngay jàngal moo tax éthique déontologie lu am solo la. lii am na solo solo bu nga xamante ni ku nekk waroon na ci bénéficier waroon na ko xam pour nga mën a mën a sàmm sa liggéey pour mën nga gën a doxal sa liggéey ni mu waree mais loolu peut-être moom lañ déploré mais remercier quand même euh, coopéra Euskadi ñoom ñoo yombal daje bi pour mën a am ñu xool tous les collèges de Thiès. ku nekk au moins indi représentant plus waa collège bu jàmm gën pour ñu mën a waxtaane mbir mi loolu vraiment ñoom ñu indi yombal wi euh, pour que loolu mën a am euh, appel bi ñuy lancé mooy franchement ñu def le tout pour euh, gën a jëmmal l'éducation aux valeurs parce que dëgg la dañuy former xale pour ëllëg mu nekk mag bu nga xamante ni dana mën a servir payam mais bala mu mën a servir PM il faut mu am des valeurs citoyennes et morales c'est important donc loolu daal euh, la ñu bëggoon a insister davantage pour que ñu xam ni am ay valeurs d'abord avant nga am leneen moom moo gën pour que feneen foo dugg ëllëg loo fay def aussi mu nekk liggéey bu ñoom monsieur Amady Dion professeur de français au CM Diamaguène euh, sama teewaay tey mooy euh, waxtaanee mbirum nekkin ak euh, jëfin ak comportement euh, jàngalekat élèves parents d'élèves ñëpp ñoo xam ne dañu ngànk école ci mbirum école daanaka ñu nekk fii yëpp dañ leen former c'est des professeurs et des inspecteurs mais yoon mi bari na xaaxaam atel enseigne que euh, fàttaliku baax na aussi gisaat yenn mbir yi baax na parce que adduna bi léegi dafa changement yi dañu bëri moo tax nag ñu yeesalaat xel yi pour ñu gën a adapté pour xale bi encore yaakaar euh, bu parents d'élèves am si jàngalkat yi yaakaar bi bañ tas moo waral tey ji euh, ci mbirum comportement enseignant mbirum comportement aussi xale yi parents d'élèves yi lan la ñuy waaye soo xale yi soo tegee euh, sa doom si loxo professeur da nga am yaakaar si moom ëllëg xale bi tekki moo waral nag tey ñu daje su la direction de coopéra Euskadi moo waral ndaje yi ak inspection euh, IEF Thiès pour euh, gën a ñaaxaat jàngalkat yi gën a ñaaxaat élèves yi te aussi ñaan parents d'élèves yi gën a sàmm xale yi topp leen aar leen ndax àdduna euh, dëkk réew mi lu mu bëgg am si xale yi ñu am ko. liggéey gi amul jafe-jafe parce que ñu nekk fi yëpp wax bi benn la donte yenn saa jëfin yi wutee mais wax ji benn la wax ji mooy. xale bi danañ ko war a euh, euh, jàpp pour mu njëriñ réewam ëllëg te njëriñ réewam anam bu rafet parce que nit mun na am xam-xam fekk mu njëriñ réewam nu mu waree nit mun na nekk médecin fekk mu ñëw dix heures fekk maladie yi tardé nit mun nekk enseignant mu am xam-xam fekk xam-xam bi ni nga ko war a joxe joxe ko loolu moo waral déontologie ak éthique euh, am xam-xam ak yaru moo war a ànd am xam-xam am nu ko joxee moo war a ànd élève nag donte yaay sëriñam war a ko xeeb da nga war ko xam parce que élèves yi mot nañu téeméer ci biir classe bi mais xamuñ nan la ñu nan la ñu euh, euh, dëkkee parce que élève danga nga koy gis ci classe rek mais da nga war a xalaat aussi dafa fu mu jógee fu mu jógee fii ndax am na problème ndax ndëkki na ndax suba sii bàyyi na dépense kër ga yooyu yëpp jàngalkat bi dafa war a xam élèves yi mot nañu cent élèves ci classe waaye bokkuñu kaa enseignant bi ma war a ràññee ñi ñëpp sama élève lañu ku nekk war na ko traité xool si ko respecté ko ndax ku nekk aussi war na réussir parce que dénkaane dafa diis. man damay ne élève enseignant bu koy jàngal euh, ndongo daara la man dama jàppe ne élève école daara la daara mooy yaru parce que ku yarul xam-xam mënu dugg sa bopp te jàngalkat du noonu. jàngalkat du morom jàngalkat sa kilifa la war nga ko respecté ndax ëllëg tamit da ngay nga jëriñoo ko euh, jàngalkat aussi dañ leen ñaax daal ñu xam ni xale yi seen ay doom lañu parce que dama wax ni jàngale ak yar ñoo war a ànd munoo wax ni yow jàngalekat nga du ma yar xale bi sama yoon nekku si lu mu def baax na lu mu sol baax na parce que da ngay xool élève bi day jógee école huit heures naka jàngalekat bi ba dix yaayam gisu ko papam gisu ko mais jàngalekat bi su ko xoolul colinam waxinam definam musiba tas kon nag jàngalekat yi waruñu wax ni man jàngale moomu indi fii xale bu mu nekkee sama yoon nekku ci sa yoon nekk na si jàngale waaye aussi da nga ko war a yar ndax réew su amee ay xarañ si ba walla xam-xam fekkee mag bu gën a bon ci àdduna bu yées si àdduna mooy mag bu amul yar mag nag bu amul yar si xale lay jóge kon nag ëllëg ñu ñii ñëpp enseignant dañuy dem xale ñoo ñu wuutu si bureau yi ñu ñu wut si hôpitaux yi ñu ñuy wut si école yi ñoo nekk président ah suñu leen yarul dëkk bi fu mu jëm donc dañu war a yar xale yi jàngale bu baax yar nag day commencé jàngalekat bi ndax jàngalekat bu yarawul mënul yar élève am parce que l' éducation d' abord c' par exemple voilà l' éducation par exemple un enseignant si a un bon exemple roykaay la ci la un mauvais exemple xale bi topp si moom rek su ñu waxee xale bi lu tax nga def li mu ne ah sama prof loolu la defoon parce que prof modèle la si comportement am yenn saa da nga gis enseignant waxuma dara enseignant yi nag waaye yenn saa da nga gis ñoo xam ne soo solee pein nga ñëw classe élève bi suba day sol pein wu munoo wax ne gën a sama classe parce que d'abord tu as montré l'exemple. C'est un renforcement de capacité que nous organisons ce matin sur le thème éthique et en milieu scolaire euh, avec et, et l'appui financier de Africa Félix, que nous remis, remercions au passage. Euh, à la tête, euh, il y a Madame Badji ici présente. Et donc, euh, c'est un séminaire qui vient à son heure parce que c'est un renforcement de capacité, comme nous l'avons dit, portant sur éthique et déontologie en milieu scolaire. Les enseignants en ont besoin et même si ils avaient déjà suivi une formation initiale, même si dans la formation continue, il est dit. Mais le rappel, le rappel est pédagogique. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler de ce thème ô combien important qui va à coup sûr impacter euh, l'environnement, le climat dans les établissements scolaires de Thiès. Nous le faisons simplement en termes de rappel parce que nous l'avons dit dans la formation initiale, c'est prise en charge, dans les formations continues également. Il s'agit voilà, véritablement de rappeler ce comportement, cette attitude euh, sur l'éthique, sur la déontologie, et comme nous l'avons dit, ça va impacter véritablement dans le climat des écoles. Africa Félix travaille essentiellement euh, dans, au niveau du CM Djamugenbe où il y a un très grand dispositif d'accompagnement qui travaille sur les infrastructures, mais avec un volet accompagnement dans la formation. À ce titre, tout le personnel de administratif le personnel enseignant de Djamgun B la CIP, mais nous avons demandé à Africa Félix d'élargir à l'ensemble de la circonscription et à ce euh, Africa Félix a accepté pour qu'on représentant par collège d'enseignement moyen public de Thiès, ce qui fait que nous serons aujourd'hui à 70 participants qui des inspecteurs de Thiès-Ville qui le thème en, forme d'un panel. et il y aura après des interventions de la part des participants. Pourquoi je disais que ce séminaire vient à son heure parce que c'est une recommandation ministérielle parmi les cinq priorités du ministre Mamoudou Tala, le ministre de l'Éducation nationale. Il y a euh, un volet important, notamment le retour aux valeurs. Euh, Et nous avons commencé à mettre en place le dispositif dans les collèges et dans les établissements et écoles de Thiès, à savoir la mise en rang, la levée des couleurs, euh, le respect des symboles de la République. Et donc voilà tout un ensemble de facteurs qui, a priori, doivent être portés, doivent être portés par les enseignants, les chefs d'établissement. Voilà pourquoi nous disons que ce séminaire euh, revêt un caractère très très important en ce sens que c'est véritablement en phase avec les priorités du ministère de l'Éducation nationale. Au niveau de l'inspection, c'est la formation, mais c'est également l'accompagnement. De toute façon, depuis quelques années, il a été mis en place dans l'ensemble des, des, des, des, académies du Sénégal euh, un comité dénommé CASI, comité académique de contrôle interne. Et les porteurs de dossiers ont été formés ici même au niveau de Thiès-Ville, de Thiès dans la région, l'académie, l'IA nous a fait savoir que prochainement, il y aura une formation pour revisiter encore les contours et des missions seront menées dans les écoles, comme nous l'avons dit, dans la prévention, mais également dans l'accompagnement, en amont comme en aval, parce que voilà, la perfection n'étant pas de ce monde, il s'agit d'accompagner pour redresser, pour réorienter, et en cela, les, les, les, le CACI est là pour jouer son Dans le cadre de ce projet, qui a été financé par la Députation forale de Biscaya, et dont euh, Coopera Euskadi accompagne Africa Félix pour pouvoir le dérouler au niveau du CM Diamagunbe, nous nous sommes rendus compte que euh, créer des infrastructures, c'est-à-dire quatre salles de classe, des toilettes, euh, faire des formations en citoyenneté active n'était pas suffisant. Que le rappel est pédagogique, comme l'a si bien dit Monsieur l'inspecteur, et qu'il fallait euh, dans cet ordre de d'idées euh, aller dans le sens de l'ODD numéro 4, c'est-à-dire euh, l'éthique et la déontologie en milieu scolaire. Chose que nous savons tous que, qui est en train de s'effriter parce qu'il y a à chaque fois des bisbilles, mais qui, euh, de notre point de vue, euh, en travaillant avec l'IF, peut peut-être euh, euh, euh, changer des choses ou euh, aider les, les, les enseignants à améliorer euh, certaines choses au niveau de leur salle de classe. Moi, en tout cas, euh, j'espère vivement, j'espère vivement qu'à l'issue de cette rencontre, d'abord au CM Diamogun, que les relations professeurs et élèves vont aller dans un meilleur sens, mais aussi au niveau de, de, des autres collèges. Euh, J'espère que euh, ceux qui ont été choisis pour participer à ce panel vont euh, euh, euh, euh rapporter les choses, partager surtout l'expérience d'aujourd'hui. Donc l'occasion toute trouvée pour dire merci aux inspecteurs de l'IF, dire merci d'abord à l'IF en, en, en, personne, parce que depuis qu'on a mis en place ce partenariat, il ne cesse vraiment de nous, de nous rassurer. hein, et de nous, de nous aider, de nous accompagner dans ce projet qui est ô combien important pour euh, l'école publique sénégalaise.